Birama Mangara Birama Mangara maanaam ministre budget budget Sénégal waaw xam nga bokkul ak finance waaw budget Sénégal mooy maanaam xaalisu Sénégal ki ko yor ki ko yoroon maanaam ki yor budget bi moom ci boppam waaw diggante Mbàkke ak Touba waaw diggante Mbàkke ak pale bi moo nekkoon autorité responsable politique bi nga xam ne moo doon pont bi maanaam pont bi daal pont bi ñu ne boo bëggee jógee TFM fii TFM fii. waaw pour dem Yoff dafa am pont. Ah. Birama Mangara. moo nekkoon pont bi. Ah. maanaam moom mooy maanaam responsable politique bi gën a mag. moom lañ ko jox ca Mbàkke. moom nag ak soxnaam. waaw soxnaam bi nga xam ne dafa fës. waaw ñoo ko Macky Chanel. Macky. Macky Chanel Macky Chanel. mooy a Birama Mangara. ñu xool nag a Mangara ko réew mi ñu ko dénkoon ndax Macky saal da koy joxaat. war du ko joxaat mbokk yi kër Macky Chanel. ak kër Birama Mangara moo ngi magi jox ma si ñu ngi lay sonal ay appel la oh nee nañ ma tey nañuy euh, vingt heures ci kanam tuuti nañu kii ah, pour sama mbokk nga xamante ni dañuy suivre Chanel fu ñu toll. Eh. waaw ñu préparé bés waaw kay maa ngi nii ak sama yëf. ñu ngi xam nomination. ah bon oui comme noonu ñu ko waxee quoi. d'ici peu de temps ñu daal di jël affaire déggoo ma de. oui merci beaucoup pochette la ñu yoroon léegi tànk <laughs> amin waay. amin yow daa xoolal da liggéey te yow li nga liggéey fii tey dina la wàllu incha allah. ah non mais mais mais mais mais mais mais loolu amul benn problème defar reer bu yem tuuti rek ah. wala non non bàyyi ba bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ba ñu ba résultat jàll ñu reer bu nekk benn oh, fet. il faut nga am non mën a am appétit parce que xam nga nu mu demee la hmm. waaw du ma mën am appétit mais tu penses que ne xaaral xaaral xaaral ma jël kii allo. waaw waaw non dina baax booy dina <laughs> magi mu ngi nii mu ngi nii non dina baax non amul benn problème incha allah amin waay amin amin amin waaw yàlla baax na jërëjëf mhm. ah, ah commencé na taal taal commencé na commencé na taalal voilà na bàyyi na bàyyi na voilà je vois bien et les petites et moyennes entreprises day baax monsieur Abdoulaye Diop ministre de la culture et de la communication madame Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse madame Zahra Iyane Thiam ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire monsieur Dame Diop ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat madame Ndeye Tické Diop Ndiaye Diop plutôt ministre de l'économie numérique et des télécommunications article 2 le présent décret sera publié au journal officiel fait Dakar le 7 avril ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Article Le présent décret sera publié au journal officiel. Fait à Dakar le 7 avril ay waay wallu leen ngara ay waay sama jëkkër ja dem na waay ngara Macky Macky Macky Macky Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Macky Macky sama kalpe sama budget matul sama kalpe matul sama portefeuille sama budget Macky Macky Sall sama kalpe sa kalpe sama budget sa budget Macky Sall Macky sama Chanel Macky Sall Macky Sall sama kalpe sama budget Macky sama kalpe sama budget Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky sama kalpe sama budget sama kalpe sama budget sama kalpe Macky